Amadou Gilbert Samb nekk ndaw APR jiite mouvement bu ñuy wax jëmale askan wi kanam le peuple en avant di am mbégte ak contentement ci dalal ngeen ma dalal ci seen euh, site bi di Thiès 24. Gilbert euh, ñu bëgg nga ñëwoon ñun tuuti ci sa jaar-jaaru politique. Euh, damay wax rek lenn sama jaar-jaar yi nga xamante ni ci wàll politique yi gën a marqué mooy. jamono ji may nekk PDS euh, nekkoon ci Benjamin libéraux yi Abdou Mbow nekkoon sama secrétaire général ba 2009 yàlla dogal moom mu jugee fi ànd ak le président Macky Sall ñun ñu desoon fa ci renouvellement bi yàlla dogal ma nekk secrétaire général chargé à l'organisation yoroon tamit euh, secrétaire euh, chargé de stratégies au niveau départemental biñ demee ba 18 mars bi passé 2015 si la dugg APR euh, ñu ngi jaar si loxo Pape Siré euh, euh, la tax xam nga politik caaginuwul si nguur ak lu dul nguur foo ne mën faa liggéeyal askan wi sentir ni askan wi nekk sa ginnaaw su ma nee askan wi. li li eh, démarré suma quartier laay wax fi ñuy gis seen bopp eh, tama xam mën nañoo liggéey ànd ak moom si loolu lay dox président Macky li mu commencé liggéey doy ma doy ñi may àndal ñu gis suñu bopp surtout si plan Sénégal émergent bi ñu bëggee dugg APR si rajo yàlla dogal mu yónnee si ñu waxtaan échanger ay yoon si lañ nangoo ànd ak euh, ñoom te dugg nañu dugg boo xamante ni mboolem bi APR di APR façon ralliement bu ne ñëw cees ñun suñu dugg biir APR dañ see dugg ak conviction dugg fii tamit ak def manifestation boo xamante ni yéen ñii seede ngeen si euh, manifestation bi ñu fi def mosta am biir APR si képp koo xam ne da nga jógee si beneen parti ñëw fekk si waa APR waaw bokk na si plan PSE bi d' abord bokk na si acteur de développement yi nga xamante ni par rapport ak bu njëkk nit ki day woo nit ki si politique pour moom kese après soo duggee da xam ni ñii euh, li leen président sant mooy askan di gis seen bopp te wax dëgg yàlla loolu tax ñu ñëw fekk si leen jàppale leen si liggéey bi nga xamante ni moom la président woote. Euh, mouvement bi nga wax léegi ni moom nga dal est-ce que mën nga ñoo wax ci yoon yi nga xam ne fa la bëgg a jaar pour atteindre ay objectifs. waaw euh, mouvement jëmale askan wi kanam ay mouvement yu daje loola su may xaritu bopp nga xamante ni PDS lañ nekkoon dëkk Mbour yàggoon a bëgg ñëw APR yàlla dogalu ko kilifa gañ leen doon wax jot leen a recevoir ñu ñu dem ba toog maa ñoom ñoo waxtaan ak Mathia bu Saint-Louis ak ñoom Maguette Faye dëkk Thiès ak ñu bari ñu waxtaan ñoom ñu jël seen mouvement ñu dem ba tënk waxtaan si lañ génne tur bi ne moom moom la ñuy doxalee si fàttali mouvement bi ñu yoroon euh, jamono ji ñu koy teg man ku ma xam-xam ni si développement rek laay yongu fexe woon nañu ba Mbour de ma amoon fa ñaari mutuelle euh, mutuelle bu ne ñu ngi ko doon tijji à raison de cent dix mille ñuy dem si benn banque de la place mu leen lebal ñuy ñuy def seen commerce jigéen ñi euh, Mbour de amoon nañ fa ñaari mutuelle mbuur na ñaari mutuelle si benn bi si boor jumaa ji bis des kaamu garage kër daago am naa fa ñaari mutuelle ran leen gi ma dëkk am nañ fa benn mutuelle euh, carrière am naa fa benn mutuelle guy sombel am naa fa benn mutuelle si côté góor ñi aussi defaloon nañ leen ay permis cérémonie permis bi euh, yéen am na ñeent si journage yoo xamante ni ñu ngi fa woon ba huit permis yoo xamante ni cadre yi ran leen gi ma dëkk bénéficié wu nañ si gis des ñu taska muy loolooy loolu lañ jàppee ñun politique mooy créer emploi créer emploi mënoo mënoo kaa créer jël ñëpp yóbbu si société yi kon su yàggee société bi daanu mais ki am permis tey moom déjà société la mën na nekk chauffeur euh, yor otoom dem ba si créer emploi jigéen ñi ngi si liggéey ba tey am na sama mutuelle boo xamante ni démb ñu ngi may woo ñoom ñu ngi si 2 millions moment bi euh, liggéey boobu moom laa bëgg mu gën a yaatu moom lañ bëgg mu gën a yaatu moo tax ñu def mouvement bi au niveau national te incha allah fii ak peu de dinañu dégg si yeneen raison yi ñu fay samp dafa def ay action mhm. ah, yow say activité politique ci ci ginnaaw ban leader nga koy def parce que yi boo xam ne ci ginnaaw ngay dox. waaw mhm. ah, euh, nga xamante ni moom laa lim léegi di ko def ay fonds la yoo xamante ni président Wade moo ñu ko mayoon ma téye woon leen li ba après élection yi ci laa commencé di samp man ku ma xam xam ni politique du lekk di di bàyyi ñi may àndal bi ñu ko commencé samp am na sax ñenn ñoo xamante ni eh, jàpp nañ ni leader bi nga xam moo ñu dugaloon appaire moo ñu ko jox or que du leader boobu moo ñu ko jox Abdoulaye Wade moo ma ko mayoon ma joxoon xaalis boobu téye ko pour femmes yi nga xam ñoom laa doon àndal ak jeunes yi après les élections moment boobu élection mënu ñoo def dara dañuy bàyyi ba après élection ñu soog a posé ay acte après élection yi si lañ posé acte yi jamono ji <clears throat> ñu ngi doon ànd ak Pape Siré euh, mais gis nañ ni ànd bi Siré suñu kilifa la jullit la waa ju baax la euh, en pensant maa ngi nu nuyu mooy sama directeur général si poste bi may liggéey mais si wàllu politique bi ñu waxtaanee dem nañ ba xool xam ne suñu ànd du dem ah, suñu ànd du dem parce que man damay bëgg leader base bi di la gis damay bëgg ñi nga xamante ni ñoom ñoo ma jiital suñ la soxlaa gis la mais loolu mënuma ma kaa am si Pape Siré Dia su may nit aussi mënuñu kaa am gore naa ba ba ba muñ naa ba sonn naxante naa tegal naa ko plan tegal ko stratégie référendum yi mooy bi mujj référendum yi ñëwul sama gox Kër Daago moom nga xam ne est la euh, milité Kër Daago base bi ma fa yor pour mu jug rek dem seeti leen problème la demul seeti leen joxoon leen heure demul gis leen estafa mel ni dañ may siis comme bu njëkk waxoon naa ko fi ñu tëb gen def ay point de presse wax euh, man damay bëgg ko am su ma ànd yow nit ñi dañ siy gis seen bopp mais su may nit ñoom ñoo dem ba remarqué ni xamuñu si reja te man waxoon naa ko si politique nit ñi ñoo ma gënal sax sama jëm bopp ci waaw moo tax euh, ñu ñu ñu teg lépp di doxal nag xam ne duñu mës a jóge APR président nii muy def neex nañu président lii mu euh, ji askanu Sénégal bëgg nañ mu wéy bëgg nañu président Macky Sall am deuxième mandat kon duñ ne dañuy bàyyi Siré Dia bàyyi Macky Sall duñu bàyyi Macky comme j'en profite sax pour leeral parce que ëllëg mën na am waa Clem di tontuwaat si erreur envoyé naa si rajo message suñu paree mën naa laa woon message bi xamal ni que créé naa benn kuréel du pour xeex la parce que foog naa maa ngi moom ñoo bokk bëgg-bëgg mooy président amaat ndam stratégie yu ñuy jaare lañ dul bokk parce que si wàllu politique li ma si def Pape Siré Dia def ko si dañ kaa nommé directeur général man yàgg naa politique sànq nee naa si Benjamin Libéraux yi laa nekkoon façon stratégie bu ne façon plan bu ne def naa ko fii si loo xam ne yéen mën ngeen kaa seede ak façon jaar-jaar bu ne am naa ko fi te si suma politique bokk na si nit su feebaree dama fay dem dëj damay dem police nga soxla kayit damay dem maire nga soxla kayit damay dem extrait carte électeur ni ma siy taxawee te loolu moom mi may àndal suma ma gersoo du ma ko gis samay fond bopp laay dem am na jamono joo ne dañ doon wax Gilbert la l'APR c'est le plus euh, endetté parce que yi may def dem naa ba mu te joxuñu ma cër aw ma benn poste de responsabilité salaire laa am ak suma business su yàggee nit ñi def nii sax am na leneen lu nekk si ginnaaw or que c'est faux lu mel loolu daloon na ma tabaski daaw bi si lay demee màkk ma jël fi ay xaru jàmbur jox ko ay militants si man damaa jàpp samay militants ay militants au Pape lan laa si am dem wuyu ji police pël ba ma lebaloon nekkate ku bokk ak man kër si rek moo nekk demal porté ko plainte xëy jot convocation xëy presse bi bind si su ma der yàqu dama yor njaboot yor famille yor papa yor yaay ñuy jën journaux yi di lire euh, loolu kon këram si boppam moo des ñoom politiquement dañoo des parce que suñu desul woon man du ma nekk seen kër di def ay gestes ñuy wër di di yàq suma der dem ba nga xamante ni suma yi ma lay limal léegi waa kër si rajo ñooy dem si ñoom neen bu leen liggéeyal Gilbert ngeen ñëw ñu boole leen ak euh, si rajo en personne te famille sax mun ñoo gis si rajo d'ailleurs loolu su fekkoon maa ñoom an ñu ànd ngor kon tey jii mën naa doot ma jar dara si politique ne man suma nit ñu soxla du du du man sama jëmm ju xeebu ji mais nit ñu topp sama ginnaaw moo tax te nit ñu topp sama ginnaaw maa ñoom ànd nawle la ñuy ànd teraanga la ñu fu fuñ ma soxlaa dañ may gis fu fuñ ma yabal dama fay dem luñ luñ luñ ma diis damay dem ànd ak ñoom uti ko ma jàpp ni maag Siré Dia si wàllu politique mënatuñ see ànd di dox parce que man li ma gëm mooy kuy wàcc si base bi mooy samay nit suñu soxlaa suñu xewlee dañ lay gis suñ la envoyé seen parrainage da ñëw ci bis bi jëmmal leen wala nga yónnee fa mais loolu lépp amul benn yoon boo xamante ni mi ngi dem si yeneen manifestation mais manifestation bu jugee si man wala sama nit mosu see ñëw. léegi waaw yàlla boole na maag euh, benn nit nit ki nag pour mu leer moom sàkkuwul ànd ak man mais man maa sàkku ànd ak moom ndax dëggoom moo tax maa ngi tooñ sax si Facebook bi ma ne ñun dañuy remercier président Macky Sall mi ñu fi indil Ndeye Tické Ndiaye Diop parce que. femme la boo xamante ni mën naa jigéen ju mën góor la bari dem ñu ngi sama benn euh, maman mi ma naan Ndeye Tické Ndiaye dafa wuyu turam parce que ticket la soo ko amul doo entré kon Macky suñu yabalee ku mel ni Ndeye Tické nga xam ni si wàllu politique Macky daf ko fay yabal pour mu gën a massifier le parti jàpp naan nag Macky dafa am vision parce que vision bi mu am mooy li Thiès manqué woon moom la ñu yabal koo xamante ni da ngay woote si unité da ngay poser ay actes te da ngay yëngu si développement Ndeye Tické femme de développement la beneen bis des euh, lépp lu mu def ay act la lépp lu mu def te dafa ñëw ak plan d'action ñëwul si noono li nga xamante ni non mooy suñu problème APR da ngay nekk ak leader bi mu ne la bul dem manifestation leader bi nga nekk ak beneen leader mu ne la fexeel leader bi nekk zone B na na ñaawteef dal si ko am or que nag ku mel Ndeye dafa ñëw uniquement pour li président bëgg président waaw euh, si li nga xam mën nañ see teg suñu bët yéen seede ngeen si euh, presse bi laate na ko am na set setal boo xamante ni dem na koñam am na ay mbootaay yoo xam jàppale leen si buret jàppale leen si bale jàppale leen si financement jàppale leen si lu bari bët gi de moo Ndiaye tournoi Ndeye Ndiaye gis ngeen ko comme moom day yëngu si sport day jàppale jeunes yi euh, def na tournoi boo xam ne jàppale na ay équipe yu bari si jeu de main parce que ku ne vacances euh, ne ne nawetaan te ku ne nawetaan ne équipe yi yi ñuy soxla da nga xamante ne suñu maire yi subventionné tuñu équipe yi kon ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekk si euh, nguur gi wala ñooy liggéeyal président ak président fi mu teg jeunesse bi ñooñu si mën a jàpp moom jàpp na leen si ay jeu de main jàpp na leen si ay ballon te du yam foofu day day continuer am na ay école de football yoo xam jàpp na leen si côté gestion de cadre de vie nga xamante ne ak assainissement dafa am solo day tikkee daf siy yëngu daf siy yëngu teg na ay plateforme yu bari yoo xam dina dugg si quartier yëpp dina dugg si si si département bi mais si commune la koy commencé comme tàmbalee na ko si koñam ñi ngi xaar dina ñëw suñu koñ dina ñëw si yeneen koñ te dinañ si ànd ak moom Euh, beneen bis si si wàllu légumes yi am na lu mu si ay formation yu muy defal femmes yi yoo xamante ni si wàllu maraîchage de transformation des fruits et légumes si loolu lay yëngu te te dina si jàppale femmes yi déjà fii peu de temps dina am ñoo xam ñooy ñëw di former suñu femmes yi euh, pour ñuy gën a farlu si commerce bi mën a am lu ñu denc ba nga xamante créer seen yëfu bopp di di di si dem en tout cas Ndeye nit la koo xamante ni mi dans le euh, général. Uh-huh. Euh, bi ñuy mujjee euh, ñu ngi ci au conseil des collectivités territoriales yow nan ngay yaakaar ni fii ci Thiès lañ mënoon a doxalee ba xam ne dinañ mën a teewal gox bi jiitu mooy d'abord ñiy tànn ñu dimbali askanu Thiès ba duñu laal conseil boo xam ne dafa bokk réew mi. mooy bi jiitu beneen bi si des li si wàllu président nga xamante ni moom mooy tànn ganwaar gi 70 yi képp ku mu ñu tànnal bëgg nañ te dinañ topp si ginnaawam mais li nga xamante ni dañ koy voté encore une fois suñu conseil yi nga xam ne ñu ñoo leen fi teg nañ nañ nañu voté liste Benno Bokk Yaakaar bi dara luy laal réew mi bañ dugg si conseil boobu parce que aussi Thiès dafa sonn te Thiès lépp loo xamante ni moo moo ñu tegu rek Idrissa ak waa këram ñooñ ko teg waaw sama kàddu gi mujj maa ngi félicité encore une fois Ndeye Tické Ndiaye Diop di ko dalal xam ne fi mu teg tànkam foofu rek la ñun ndaw Thiès falaat président rek lañ bëgg président am ndam rek lañ bëgg am nañ yàqin que ni président day am deuxième ndam mais ndam liñ bëgg mooy mu gañe Thiès te pour mu gañe Thiès na nit ñi roy si Ndeye Tické Ndiaye Diop parce que mi woote unité su xewlee ñëpp lay woo bari Demba Ndiaye gis ngeen si Thierno Alassane dafa ñëw si manifestation su xewlee ñëpp a koy wuy si kon ku mel noonu jaar naa toppandoo damay lancer appel si responsable yi fi ne ñu toppandoo Ndeye Tické Ndiaye euh, pour président mën a gagné Thiès gi ñu dëkk di di ñaanal Sénégal jàmm sax fi surtout Thiès gi ma dëkk di di di di feddaliwaat sama kóllëre ak waa Mbuur di fedliwaat sama kóllëre ak guy sombeel ak kër daaro ak ran leen noor gi ma dëkk di leen wax ni man seen doom laa ñoom ñoo tax mooy dund te ñoom laa fi nekkal te fépp fu responsable nekk baax gën si ñoom dinaa leen ko xëccal looloo tax ma dem seeti Ndeye Tické Ndiaye ngir mu ànd ak man mhm.